sukkandiku ci bis diine yi di fexe ba jàppale askan wi ci li nga xam ne ni mooy ay jumtukaay ñu gën a na ci loolee lu jëm ci wàllu ni amal ci Cilmaxa dëkk bi ni yu sophistiqué la ba tax na askan wi yenn saa yi ñuy faral di génn ci Cilmaxa dem ci yeneen dëkk yu yi di fa jiggaani am paj ci bis daal di indi ay fajkat yoo xamante ni ñu nga jóge ba diwaanu Ndakaaru ci ndimbalu jëriñ ji gàllu lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci réew bu Sénégal ngir ñu daal di mën a amal am paj ci askanu cilmaxa te duñ ca fay benn dërëm lii nag Cheikh Barlaat mi nga xam ne ni ñëwoon na ngir dara jaal bis bi ci ay kàddu nga xam woote bis yu mel nii ñu xam ni population yi leen wër ñëpp àdduñu am doole mën a faju ji lii bu fekkoon tey kilifa diine fu mu wootee euh, la mu sumb mu sumbaale ci lu mel nii yakaar naa ne ñiy dem ci hôpital yi bu ñu waree doon téeméer ñaar fukki nit sax bu ñu waree doon cent vingt pour euh, euh, vingt dootu ko mat quatre-vingt pour cent yi mën naa wax ne loolu da cay dem kon ma ma ma ma di ci ñaax kilifa diine yëpp koo xam ne wooteete nga lu mel nii ñu di la ñaan di la yelwaan di la ñaax nga xam ne ñi la ñi la wër ñëpp àndandoo wuñ am doole. ginnaaw loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di bénéficiaires yi nga xamante ni jëriñu nañ ci pàcc moom la ñu nga yëkkati ay cadre di fësal daal lii lee initiative la boo xam ne nii war nañ koy faral di amal lu gën a bari foofu la ci diwaanu Cilmaxa ndax dañ loo xam ne nii dayoo ba kenn mënu koo natt. fajo ngeen defal ma lu baax sama yaram di métti ma ñëw ci yéen ngeen faj ma ba ma wér lu fayu ma dara sama fu ma war a jaar ci mu wér jaarloo ngeen ma ko lu ma war a am def pour wér defal ngeen ma ko sama xol fayu ma ci dërëm fayu ma ci ñaari dërëm. nan ma ay verre ndax dan ne ma euh, lu sori mënuma ko moom laay gis mais lu ma jege mënuma ko gis waaw vraiment daal euh, consultation bi daal aw na yoon lool euh, gis na ci suñu bopp bu baax daal ñu ngi sant daal population bi ñëpp. ci boobu la bisu consultation gratuite ci Cilmaxa nag dëppoo ak bisu màggal gi nga xam ne ni Serigne ko fay xam ne ñoom ñoo di médecin yi nag di fësal jot nañu faa saytu ay jàngoro yu bëri jot nañu faa saytu askan wu takkoo takku jox leen ay garab waaye itam ñi nga xam ne nii seenum paj dafa laaj ñu jéggi Cilmaxa bind nañu leen ay këyit ngir ñu daal leen mën a évacuer ci